jamono bi nit ñaa ngi iñaanante nit ñaa ngi soxorante nit ñaa ngi rayante waaw dañu mas a dem ci almeer yi fii di ko defar ñu fekk ci ay boppu néew ay ay pont yoo xam ni pont diis la ak ay takk yoo xam ni ña ko fa def yitte bi ñu am mooy gàllankoor seen moroomu doomu mbokk yi ku amee xol boobu looy julli ku amee xol boobu looy woor nit su demee ba dem ci nit wala mu yëkkati xalima dagg xaatim dugal ci mbokk jullitam wala mbokk sax waxuma jullit doomu aadamaam ni moom te jubluwu ci lor ko lor ko wallahi dee moo la tere dem safara te mbokk yi jikko yooyu moo bari ci ñun bari na ko feebar bari na ko dematul bari na koo xamante ni yàqule na fekk ay mbokk doomu aadamam ñoo ko ko teg yooyee la sunu boroom bëgg ci bésu tabaski bu ñuy rendi xar mi jikko yooyu yépp ñu rendi ko ba mu set ci ñun ñu nekk ay abdan xaalisan lillahi ay jaam yu sel ci sunu borom subhaanahu wa bés toog nañ ci bërëb di waxtaan ñuy waxtaan ci tolluwaayu jamono ak yàqu-yàqu ak iñaan parce que yàlla attention yàlla moo wax ni wa min charri xaasidin isa xasada yàlla nee na am na ci sama nit ñi man yàlla xam naa ne ñii dañoo dañoo soxor yéenewuñ kenn jàmm ñu naan diw mooy jiite fii lu tax mu fiy jiite diw moo am alal ji lu tax mu am ko diw moo am nomba tànk bi lu tax mu am ko te kenn mayul sa bopp yàlla moo séddale ay cëram yàlla mooy maye ñu ni dem nañu ba yàqu-yàqu jamono nit dina dem ba fay nit ni ko su nit génnee àddina maanaam doomu aadama su génnee àddina cëram yépp ay bàyyi la muy génne ci tiflit ci mujj tiflitam yu mujj am na ñu koy jënd sax di ci fay xaalis ngir gàllankoor ci doomu aadama moo tax dañuy wax ni ku ci am seen néew dee ko toppatool sa bopp wala nga wut koo wóolu mu toppatool la ko gis nga mbokk yi jamono toll na ci yàqu-yàqu boo xam ne te doomu aadama yi képp la nit a ngi génn àddina ñu jël xaatim sexal ko néew bi ngir suulaale ko ngir kooku bu néew bi demee ba am ñeent fukki fan ci ci ci suuf ni yaramam di yàqoo noonu la doomu boobu di yàqoo dootu amati njariñ ci àddina wallahi alazim am na sax ñuy suulaale ni moo tax ku nekk war nga am fulla sax say sa néew bu ñu koy suul koo xamul bu mu ci jàpp am na ñoom sax dañuy dañuy yoraale téere lu leer laa lay wax ni dañuy yoraale xaatim bu ñu gàllankoor doomu aadama bu ñuy suul néew bi ñu suulaale ko waaw mbokk yi loolu dem na ba dugg ci famille yi dem na ba dugg ci tarixa yi dem na ba dugg ci parti politique yi dem na ba dugg ci jàkka yi ak ci jumaa yi imaam yi sax dañuy tëkkoonte tëkkuwante jamono yi rek am na ci ci Dakar ku ñu fal imaam ñu tëkk ko matul weer sax donte yàlla mooy rey ya donte yàlla mooy rey mais naka ngay defee loolu yow nga ni jullit nga danga bëgg a nekk imaam wala danga bëgg a nekk sëriñ wala da nga bëgg a nekk nitu yàlla wala sax doomu aadama nga mbokk yi loolu moo tax yàlla ni ñu nañu dem wuti xaru tabaski ñu ñëw rendi ko